جاوت بالفرقان ربي المهين ملكت نفسي وزلزلت اللئيم أغز من دنيا مساعدي للجنان وانقاد لي الهوى ولي سفى الجنان وعلاني الأبرار في أخرايا وانقاد لي بلند أنخرايا سابقني إلى الجنان جيم ولي سواي سوزها الرجيم يرسي عن اللهين والفجار كون بديع العالمين جاري أكرمني البديع بالكتاب وسالني أتاري بالهتاب

زادني له بأنواع البديل برأني الخالق من سواه وقادني من لا يرى سماه كتاب ربي كان لي وكنت لو ولله به سكنت ترسي عن الأدار والمفاسد سلام جالب لفاسدين أكرمني الله بذكري وما نختاره ولي خاك الأقوما بابي الله كرام القرآن وببقائي النبي سرا عباد ذي الجلال والإكرام أراد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لست أشك أبدا في كوني دار البديع عجبا للكون من الذي من الإله يخرج ànd nañu ak moom ànd bu rafet ànd boo xam ne nii ma nga commencé ci daayira des étudiants mourides waxuma isbu tarxiya de dem laa wax daayira des étudiants mi ki xam ne moo jur isbu tarxiya ñu ànd yàlla defaat ñu bokk nguur ba tey yàlla jël ko yàlla ko yàlla xare àjjana tey ñu xam ne Sénégal daal doom benn ci doomam bi nga xam ne gën jariñ nañ ko bu baax jërë ngeen euh, bi yëpp euh, ki nga xam ne mooy woy yàlla dafa def nekkoon daayira te defe naa suñu relation yëpp ci loolu muy taalibe liggéeyal Sëriñ Tuubaa di sax gërëm te defe naa suñu egg see liggéeyam wàcc fii yem fii yaakaar naa ne bokk na ci ñi nga xam ne. wax dëgg yàlla sëñ Touba dëgg la ci ndax ni ñu taxawoo yoonu murid ndax yoonu murid daf ko assumé woon assumé woon à à beaucoup de points de vue dafa assumé woon ci jikko assumé woon ko ci euh, ni nga xam ne moom lay doxalee ci comportement assumé ko tamit ci liggéey ci liggéey li sëñ bi doon wax rek euh, ñun ñëpp nañu jël discipline prière def ko naa tey jii loolu la ñu mooy sax fa ko fay jëriñ ndax mu euh, moom lépp ci wàllub liggéey nag dëgg yàlla defoon na yàlla defoon na ñuy ñu nekk ci cabinet bi ensemble euh, ànd le président Macky jàppale ko lépp loo xam ne moom mun na ko munoon na ko def ba Macky Sall euh, tey jii toll fi mu toll ba Badara Cissé def na ko gàcce ngaalaam def na ko à beaucoup de point de man mi bokk naa ci ñi nga xam ne moo moo ñu njëkk a convaincre ci ñu ñëw jàppale le président Macky Sall. waaw bokk naa ci ñi nga xam ne moom moo ko dox moom moo ko dox ci loo xam ne wax dëgg yàlla jafe woon na lool waaye ñu nangul ko ko ba dem ànd ak président Macky Sall euh, ci biir tamit liggéeyu gouvernement bi bi mu nekkee ministre euh, des affaires étrangères wane na fa xareñ boo xam ne ndax moom yàlla daf ko mayoon xareñ ci tubaab nee naa suma xarit bi sànq rek euh, Alioune Badara Cissé ni mu daan làkkee tubaab ca Senghor lañ ko gëj a dégg sa Senghor la ñu gëj a am kuy làkke tubaab ni Alioune Badara Cissé di làkke tubaab waaw bon defe naa tey jii yal nañu yàlla euh, nañu yàlla nañu yàlla euh, dimbali euh, taas ñu ci barkeem ñun tamit lépp loo xam ne ci wàllu ñaan lañu def nañ ko te yaakaar naa ne loolu rek lañ ko deseel fi mu nekk di ko ñaanal suñu xarit yi nga xam ne moom la ñu àndal docteur Moussa Sila mi nga xam ne xaritam la woon seen relation ci xam-xam rek la tegu woon ak jëriñ Sénégal waaw kooku moo doon Alioune Badara Cissé tey jii euh, waxuma Sénégal rek mais c'est toute l'Afrique Afrique bi yëpp moo ñàkk moo ñàkk seen doom euh, su ma soxna rek démb mu may wax ne bibliothèque moo dem ndax xam-xam bi nga xam ne yàlla dénkoon na ko noonu la euh, wàcce woon boppam tamit noonu la wàcce woon boppam noonu la mënoon a jaamu nit su la gisee li mu lay woowee mooy baay baay diw baay diw baay diw loolu xam nga forme d'humilité la te yàlla mayoon na ko lool waaye loolu yëpp ni ñu ko jëlee taataan ko ci jàng bi nga xam ne ba ñu bokkee euh, euh, daayira daayira étudiant nga xam ne ñun saa sëñ Saali Mbub ca jamono jooju moo doon suñu président moom mu ñëw bokk ci la ñu njëkk a jàng ci daayira boobu mooy tësaw di saxaar te moom mokkaloon na ko ñu jógee ci Teuso si xaat dem ci Kunkaati man mokkaloon na ko ñu dugg ci nox ju mokkaloon na ko enseignement yooyu nag njëkk ci moom moo waraloon nit kii tey waa Sénégal yëpp xam ci wàllu xareñ humilité ak lool bon nañ ko ñaanal rek dal na ko yàlla xaare àjjana jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi waxaat ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaanal sëriñ Muntaxa Xaadimu Rasul mu yàgg fi lool ci wér waaye tey bis bu métteet la euh, bis la boo xam ni ni tamati liñ ci mën a jàpp mooy ab jullit la woon liñ ci mën a jàpp mooy taalibi Seexul Xadiim la woon liñ ci mën a jàpp mooy diir ñi ngi ànd ci yëngatu yi ci àdduna ca jamonoy Abdoulaye Wade ba ci jamonoy makki Sall yi mboolem fonction bu mas a yor ci àddunaam foo ko fekk fu nekk day wane ne taalibu Seexul Xadiim la ñun ñi nga xam ne dañoo sant Mbàkke di ànd ak ñoom ci yëngatu yi fu mu mas a nekk ci àdduna ak garaat bu mu a nekk ci àdduna boo ko fekkee dana jëkk wane ne taalibi Serigne Touba kon ñun liñ ko mën a seereel ak taalibeem lu wér la bokkut ci ñi nga xam ne xëy na taalibi biti li nii waaye taalibi gu mu doon dund ci biir xolam la ba tax na ñi ngi koy ñaanal seexul xadim gàttanu ko xare ko ci yàlla xare ko ci àjjana gën a kawe jàpp nañ ne euh, moom ci jëmmi boppam di ba Badara Cissé ak taalibeem ak gëm sëñ tuubaam kenn waxatu ko ndax ñëpp xam na ne ci jamono Hizbut Tarqiyyah ba ni taxaw di nekk ay étudiant fa la tàmbale woon kon mën na wax ne moom dafa dundoon ak nekk ci arme ab buñ ko doon woowee ab armée yoonu murit di ko dund dundeen woo xam ne ci ak taalibe yemutoon ak kenn kon loolu lan mën a sedd ci moom mënuñoo wax ci moom lu dul ci wàllu taalibeem mënuñoo wax ci lu dul gëm gi nga xam ne gëm na ko Seexul Xadiim kon foofu lañ ci yem ndax